nu ngi jëm ci làmb ju rëy diggante parcelle ak jàmm gën combat am na fi diggante Robert ak Mbaye Guèye combat am na fi diggante Balla Gaye ak Modou Lo combat am na fi yu yu ëpp yooyu waaye ci jàmm rek la mujj ah ca dëgg-dëgg wax ji rafet na lool suñu papa suñu maam El Hadji mbay Mbaye Siteu ak Papa Sow la réew mi yëpp di xaar dimanche 6 novembre 2022 ci arène nationale mu war a nekk bés bu rëy war a nekk fête ci biir réew mi moo tax nag waa jàmbaar production ne lamb ji grand combat bi la ñuy jël daal di koy tuddee ki nga xamante ni moom mooy Alaaji Babacar Thiam doomu Grand Dakar ak ñaari tali waaye nag waa jàmbaar nee nañ duñu yem ci loolu kese ndax bëri na ay combat yoo xamante ni dina am ca bés ba Anaconda dina fa jàkkaarloo ak caatu ngéwél Ziza jàkkaarloo fa ak Gorel Mbacke Faye jàkkaarloo fa ak Sakal 2 fils de Samsam jàkkaarloo fa ak Petit Lo Ñang Baalo dina fa jàkkaarloo ak Thier Guy gi Boy Notaire jàkkaarloo fa ak Caatu Piyol Max Mbergan numéro 2 ak Moussa Dioum numéro 2 Papa Samben ak Soulay Gaynde dees bu Parcelles jàkkaarloo fa ak Farba bu baax yaay jàmbaar nee nañu bu ñu tëggee rek dañuy bàyyi xel ndaw ndaxte dañuy jël turbine vert ak jaune daal di koy def 3000 francs amateur rouge ñu def ko 10 000 francs loge VIP ñu ko 20 000 francs lamb nekk Sénégal mën ngeen ko jëndee par Free Money Orange Money wala par Wave 2500 lay jar yéen ñi nekk ci Europe bi nag moom 9,99 euros ngeen ko mën a jëndee mën ngeen ko jëndee ak Paypal mën ngeen jënd ak seen Mastercard wala seen carte Visa ci seen affiche xam ngeen ko mën ngeen posé candidat ah. deux mille vingt quatre ñooy posé candidat. base base rek. góoral góoral moo fi neex ñu ñëpp Kaolack lañ jugee ñu ñëpp. salaam Kaolack ah amul kenn ku jugee Dakar Kaolack ñu yëpp. Thank you. ah ñun daw ñu ragal ñu loolu. sànq sa Saalum Saalum jural ma waaye. ndeysaan Saalum bi. waaw leen Saalum rek. jaajëf jaajëf. Papa moo fi ne. Ah. fii Papa Sow ñun Fass la wax Fass. ak Serigne Bamba. Papa Sow yaru na baax na am na yar ci nit. te yàlla dina ko may ndam lu set guy. Poisson da koy daan da koy daan. Poisson bi jaar nii barki dem. Poisson bajaan la bajaan la. dimanche bi jaar la faral. affaire bi faas la gannaaw xoolal affaire

voilà benn côté waaw fii la ñu xotti ñun. voilà foofu nga xotti. parce que ñu ngi essayé fii sànq jàll bi. non non non côté bi ngay xotti. yàlla benn seul. voilà parce que côté bi ngay xotti. foofu ñu ngi escané. si sa rek. dinaa yéen ay. mais non man la moom la. moom la jàppale ñu rek. defal ndànk rek. Thank you. waaw dugal si rang bi. Siteu kese. Siteu seul. mooy barab de saa Siteu kese kese yàlla min bi moom la ñu. waaw Siteu kese waaw. tey Papa Sow du am dara. Siteu la ñuy ñaanal ndam incha allah ndam ba jàmm daan ko barke Sëriñ Tuubaa ndam la ñuy ñaan yàlla. Pouso ay mbokk bi bu ko jësul bu koy toog mu daal Siteu kese barke alxuraan karim Siteu kese yàlla mel bi rek Siteu kese Siteu dong amul leneen Siteu rek kese dong ñëpp yomb de

Cadê? Mete. Não. Não. la tarjeta. Está. Está que se da. Ah. Passa de la xam ne xaasu lamb yoonam nekkul. Ah. Te wàllu yaan rek.

Anne acını, anne acını, anne. Jàppal ko bi jàppal barkal bi jàppal bi barkal bi ngene yalla ba nu ngi yum ci làmb ju rëy diggante parcelle ak jàmm gën combat am na fi diggante Robert ak Mbaye Guèye combat am na fi diggante Balla Gaye ak Modou Lo combat am na fi yu yu ëpp yooyu waaye ci jàmm rek la mujj ah ca dëgg-dëgg wax ji rafet na lool suñu papa suñu maam El Hadji Mansour Mbaye Siteu ak Papa Sow la réew mi yëpp di xaar dimanche 6 novembre 2022 ci arène nationale mu war a nekk bés bu rëy war a nekk fête ci biir réew mi moo tax nag waa jàmbaar production ne lamb ji grand combat bi la ñuy jël daal di koy tuddee ki nga xamante ni moom mooy El Hadji Babacar Thiam doomu Grand Dakar ak ñaari tali waaye nag waa jàmbaar nee nañ du ñu yem ci loolu kese ndax bari na ay combat yoo xamante ni dina am ca bés ba Anaconda dina fa jàkkaarloo ak caatu ngéwél Ziza jàkkaarloo fa ak Gorel Mbacke Faye jàkkaarloo fa ak Sakal 2 fils de Samsam jàkkaarloo fa ak Petit Lo Ñang Baalo dina fa jàkkaarloo ak Thier Guy gi Boy Notaire jàkkaarloo fa ak Caatu Piyol Max Mbergan numéro 2 ak Moussa Dioum numéro 2 Papa Samben ak Soulay Gaynde dees bu parcelle jàkkaarloo fa ak Farba bu baax yaay jàmbaar nee nañu bu ñu tëggee rek dañuy bàyyi xel ndaw ndaxte dañuy jël turbine vert ak jaune daal di koy def 3000 francs amateur rouge ñu def ko 10 000 francs loge VIP ñu def ko 20 000 francs lamb ji nag en live ngeen koy am pay per view ci seen affiche point com pour yéen ñi nekk nekk Sénégal mën ngeen ko jëndee par Free Money Orange Money wala par Wave 2500 francs dong lay jar yéen ñi nekk ci Europe bi nag moom 9,99 euros dong ngeen ko mën a jëndee mën ngeen ko jëndee ak Paypal mën ngeen jënd ak seen Mastercard wala seen carte Visa ci seen affiche point xam ngeen ko mën ngeen ko tàmm ngeen ko ndax nee naa leen seen affiche